dañu koy tënk ci xew-xewub jamono tënk ko ci baatu ku ko am réewam jaral bokk yi am réew ku xam lim doon xam fi muy toll ci nit bu am réew yaatoo ci moom na ko jël ci kër gam juddoo ak dëkk ba mu juddoo dëkk bi nga xam ne fa la juddoo ak kër ga mu juddoo ak néeg ba mu juddoo ci biir kër ga ak biir dëkk ba kër ga ne ci biir dëkk ba mu doone fa xale bi ba doon gone gi ba doon ngóor si bu dee góor la bu dee jigéen ndege njege marsi ba ba muy doon waaj ba ba muy àgg ci góor gi lii gën a metti ci moom mooy ñu tudd dëkk ba te waxaguñ lañ cay teg fu mu ko mën a fekk fit wa dananti rét moo tax ku ko réew mi jaral bu fekkee daa tànn ci réew ma benn dëkk dëkk ca tànn ca ab gox dëkk fa tànn ca fu mu dëkk ne mooy këram kepp féeg laaloo ko jëralu ko jóg dese naa dégg lañ gàll ci aw loosam te kat waqifuhum innahum mas'uluun daa am ñu ko moomale ñu ci alxuraan su ëllëgee nit dana layoo ba war a dem ci yéen ma day sunu borom njabootam nga ne yàlla kee bu demee àjjana danañu jaaxal bàyyi nu fii ndax li ñuy yàggal fii kat cala ba wax jotee waxutoon ba jóg jotee jotutoon ba ku nekk def la mu bëgg a def lépp kon li ñu dal mënu caa génn yàlla ne axakay ah nañ ko delloo si ñu xool yàlla nag bokk yi kenn réyut ci kanamam kenn réyut ci moom nu waaye mën a toll as njaamam dong ngay mën a doon moo tax balaa joy di jot ñu ne diw jaamu yàlla rek ko ñor bokk yi su jàmm amul jaamu yàlla gu set mënta am julli mi nga xam ne moo ci gën a màgg moom lañ gis ci alquran fu yàlla yaatale muy julli goo xam ne fitna daa am donte moom du taxaw mukk bu fitna amee nee na bu fitna amee ba kenn talatu ko it nii la ñuy jullee mooy ka jiite du ne dem leen maa ngi ñëw nam daan jiite lay jiite ñu benn kuréel bu dee jullit tisbaar ci misaal ñaari rakka lay julli day na ca kanam te ku na ca kanam yomb naa séen waaye dafa ko koy jaral du yebal kenn day ñëw mu taxaw ca kanam ne ay ci leen li xam leen ñu def mbooloo bi ñaari xaaj mu jiite mboo mu jiite xaaj bi benn rakka jóg taxaw moom mbooloo ma àggalee seen bopp ñeke des ñëw taxaw seen place ñi wuutu leen facca jàppante ba ñii ñëw mu jiite leen benn rakk sëlmal moom ñu àggalee seen bopp benn rakk kon boog njiit dafa am wàll bu fit na amee moo war a taxaw ca kanam waaye fee tudduñu ko moom wala tudd ñu ruq ba mu nekk wala dëkk ba mu nekk war sa jóg loolu njuumte man na caa am ndax kat bokk yi fa nga nekk am na solo lool dingi naa ko waaye yàllaa ngi nii du tagg kenn waaye day day kañ kañoon na ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen dëkk ya ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak seen kër ya ak seen alal ja Bayi seen suufi maam ak baay ak seen suufi bopp yoo xam ne ñoo ko wutaat ginnaaw bi ak alal di te nekk lépp ah ngi fii sabilillah laajuñu loolu fi mu ne nii si jamono ji laajaguñ ko waaye liñ laaj mooy kuy kilifa rek nga génn ne aha te ña ko séq ñépp nag nga wax ak ñoom ndax bayil jooy yi moom munta ànd soo ñëwee da ngay téye kay dóor ba kay jooy noppi nga ne ko looy jooy ak lu ngeen lu mu la def ak loo ko def waaye muñël defe naa ne dóor yi gën a metti nii loolu du kilifteef lii boolee nit nag ci am réew léegi mbari na di ko boole ci dëkk bari na am na ñoo xam ne farfarloo moo leen fa yóbbu ñu toxal fa seeni këyit ay kayit kese ko boole dëkk ba ñooy mën nañ faa ba ñu yëg dara waaye koo xam ne yii ma wax fi la cib dëkk la ko defe saa bu ñu ko tuddee danaan ñogg ba ba ñuy wax jàmm buñ ca waxee lu dul jàmm fam ko fekk lu mu sori sori mën naa gën a metti ci aw naqar na muy mettee ña dëkk ci biir dëkk ba ci boppam di ko fekk moo tax bànneex bi yàlla boole ak nit ca ab dëkkam akum réewam loolu yàlla moo ñu boole ak moom bind moo ñu bind noonu bànneex boobu yàlla moo ko bind ak noonu nee na ci alxuraan su fekkonte ne dafa farataal ci noonu ku am nangami at buñ ko rëyut na rey boppam loolu tiis lay doon waaye lam ko dendaleel dafa ne boobu walla ñu ne ko soo amee mi at da génn sa kër wala nga génn sa dëkk wala nga génn sa réew dem feneen nee na su ko farataaloon ci ñun ñu néew koy def ci ñun ñoo koy nangu ñu néew su ñëwoon ko am nangami at buñ ko rëyit moom na rey boppam wala ñu génne ko ab dëkkam la muy dendaleeg rey lu diis la walaw anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ixrujuhu min diyaarikum ma faaluhu illa qalilum minhum moo tax ci ay jamono kuñ mas a bëgg a teg naqar wu mu dul fàtte ba mukk dañ ko naan coppet ci dëkk ba mu dëkk yóbbu ko fu sori foo xam ne dootu gis kenn kuy waxtaane dëkk booba sax muy ak mbugalam am na luñ ci xam waaye yonente bi sallallahu alayhi wa ci ak matam jàngale na ko ba mu ñu koy jàngal ci nit ak fa mu dëkk na muy soree ci moom mooy nekk na ci makkal mukarrama makkatal mukarrama coono bu nekk ñu teg ko ko teg ko ñooñam waaye la tax jéemut a jëflante ak waa dëkk ba ca diir dëkk ba daa xam ne lu fa yàqu moom la yàqu lam tànnoon suñu boroom fekk ko ca mooy jóge fa dem feneen gàddaay waaye lam yi dëgër lépp wan nañu ak niteem ba demee bay bëgg a génn fañ naan fii la Makka tàmbale dafa geesu ne ndaw dëkk bu ma bëgg buñ ma fi génne wutoon di fi lay dëkk ba faaw wallahi innaka la ahabu biqaai alay ilayya ولولا أن قومي أخرجوني منك ما ما سكنت غيرك sëñ bu mag bi bi ñu ko jëlee ca yéen Jolof di ko yóbbu njaareem ba mu déggee turu njaareem xam fa mu féete ci réew mi daa wax cim xelam na ndax yàlla bu ñu rombee Tuubaa ma xool garabam ya ndaw fu ma miinoon moo tax ba ab xakim buy àtte di àtte ñaar ñu doon xëccoo ab xale te xale bi munta wax ku ne na moo ko jur dana leen nañ leen ko séddale ginnaaw ñaar ngeen tamuy lenn nañ ko dagg ci digg bi séddale leen ko joxoñ kenn ne ko ndax jubóo nga ci mu ne waaw mu ne ka ca des waaw da ko ne ndax jubóo nga ci mu ne waaw mu ne ko fooy féete mu ne fa féete ak bopp bi mu ne ka des mu ne ko nanguwuma mu ne ko yaa moom ndax boo ko moomee doo ko séddoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kenn ku ci nekk war na bu xëyee tàllal tànkam mu tàlli la ko cay war mooy sant bu tàllalee tànkam mu tàlli mu jóg toog yii toog nangoo toog mu jóg taxaw yii taxaw yépp nangoo taxaw mu dem dikk waaj julli suba mu wóor ko ne tey jii dana ndéego dana añ te dana reer nee na kooku da lu ko dese ci àdduna man asbaha minkum aminan fi sirbihi muaafan fi badanihi indahu quutu yawmihi fa kaannama xiisat lahu dunya bi xadafiriha waaye am na ñooñ lañ bëgg moo féete kaw loola te fa yonent bi nañ fa yam ku ko bëgg a weesu mën ngaa def duñ lay xoole ba faw moo tax luy tax dëkk ba nga dëkk ñoŋ daf la ko war a jaral soo xamee lii boole nit akub dëkk waxuma rek këyit rek boole ak dëkk ba këyitu kese këyitu kese kepp dana boole nit cib dëkk waaye la ca waa dëkk ba yëg mën na ko bañ a yëg moom tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàngaleem yu rëy ya nee na woon saabu ak njaboot yaatoo yëngu-yëngu dana am te yëngu-yëngu yooyee mënees na koo tudde li ñuy wax fitna loolu ku yor kër bu kër ga doone yow kenn ak kala fay wettali ba yàgg mu tàmbalee wétliku di tàmbalee wétliku ba mu doon ay benn benn ba néeg bu ci nekk nit dugg ca tàmbale yokku faw ñol-ñol am waaye bu ñol-ñol amee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon na war a def benn bis lay wax ak njaboot gi njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jullit yépp ak nit ñëpp ku nangu di leen leeralal bu ñol ñol bare yàlla man na baña tax ndax nañ xol fu penku fété fu xebla fété do ci deg ñol ñol ci do len kaamil bi do ci deg ñol ñol dox jëm ci jàkka ji do ci deg ñol ñol do dem dox dox jëm makka gi gëna xumbu yit du am ñol ñol kenn ku ne da am lu ko fa tax di dem mu fess ci yene ëpp le moroomam te du ko xëccok mom xam na ne ka kuñ koy wuti ci moom daj na fépp mu ne saa bu ñool ñoo tàmbalee am ku ñuy wax xudayfatu ne ko waaw su boobaa man bu ma ko fekkee nu may war a def mu ne ko demal fa mbooloom jullit yi gën a fare te am njiit nga féete fa tey déglu xadis boobu muttafaqun alayhi lama axbara an zamani alfitan wa kathrati duaati jahannama سأله حذيفة عما يفعل إن أدركه ذلك فقال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم كوكو خمنك موم لاي فاب امنا ستك سي لخوم مو غن ري نييب اوساس لوكو ورال موي بونكو غني جيغال سي نيت غن كو مانا ديغ موي بروم كير بو خامني day dégg gone guy jooy ka ko tiim yor yara ba naan tépp noppil tépp ak noppil ma munta ànd mu ne kii jooy ko mu ñu ne doomi diwa mu ne cel bis bu leen xewee tam newoon ci kër ga ak bu fa nekkul ca yam faw ñu ne ko sa kër nangam xew na fa bokk yi ana waroon góoru borom kër lu mu doon gone gu mu gis mu taq suuf genn taq suuf gi sax war naa woo ka ko yilif ne ko kii di ko taxamal ne sàkkantuma muy di muy séddale ndékki gisut kenn kenn kenn ñëwut war naa xam lu ko tey ñëw moo tax bi jamono tàmbalee soppiku bopp sa bopp tàmbalee am lañu yët ku nekk ndékkeem ca biir néegam boroom kër gi moom ñu dencal ko ndékkeem ba bam naaj lool mu soog ubbi ñu jox ko ko moom kenn xanaa ak ña ko soob ña ca des nag xamut ba xam ndékk nañ walla ndékkul bu ñuy añ xamut añ nañ wala déet bu ñuy reer noona ñoq ñoqal yi dox ci diggante bi it léeg-léeg ñu bar bakar feggul ko tegal ko ne mu defe ne moo ca nekk loolu nag bu ma ko tënkee ci ak kër noonu la ab dëkk di doxe fu njaboot gi nekk it dañ leen a war nemmiku di xam ci lu ñuy yendoo ak lu ñuy fanaane su guddee bala mu bala moo fatu bu jëkkoon borom kër moo daa tëj bunt kër bi te mooy dëkk it fësas ci buntu ba lu yëngu mu yëg ko balaa dara jàll ci njaboot gi jaar ci kawam waaye léegi lu xew day sancal fii kii wutal fe keefee wutal keefaa fenn fu ne nga ne fa nag yàlla dong moko ko waye waaye ak nos bu jekk ba juumun ci won mo ran sa ci buntu keur bi lu yëngu mu dégg ko ku ñëwutit bo re tej buntu bi da dam ci neeg ba muy ba xam diw ñew na am lu ko tey ñew bu ñewut ñu dem wari ko sen kem kat lolu ku ko yilif sa njabot bala kenn dem sax na la ma ngi dem motax deg nañ ba tay dañuy toj crédit wu ñom yi ñen ñi doxe ca faatu ndax amu naqar la leen boole mooy kër ga leen boole kër goo xam ne ca nga juddoo yaroo ca waaye su fekkee locataire dong nga fa su kër gay lakk da nga jël sa saak taxaw ne naa ndax woo nañ gaay kep loolu nag ku nekk war na koo jàng ci kër gam dëkk jël responsabilité su ma ko waxee noonu lay gën a yomb a xamee jël responsabilité xam ne lu yàqu buñ la ko laju tey ji des na ko laaj ëllëg kuñ ko laju tey ji des na ko laaj ëllëg ndax nangu naa jiite nangoo yilife loolu kenn du ko jéggal kenn moo tax ku dégg njaboot muy jooy bu dee ci geneen kër la sax war na ko war a jóg jaral bu bëggee këram day bëggale kër yëpp yëm sa soon ndax wàllante bu gaaw bu yomb ba mën a am ci ay dëkkandoo moo tax ku yuuxu ci geneen kër sax war naa jóg waaye am nañu dañ naan bu dul sama kër moom amul solo moo tax jël responsabilité jot sëkk sëñ mag bi ñaan euh, bàyyi na ci xel jëmmi boppam ci nga xam ne moo doon dem ak dikk bàyyi ca xel diine ji mu yor li ci jaamu yàlla boole ci ñooñam ñooñam it mooy ñooñ yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam amu ca fu yem kum ci dégg mu dana ko jaral jóg laaj ba xam loola lu mu doon bu dee la muy man faj mu faj su ko mënut faj mu woo jënn itam mënut a ñëpp ko teunk ci wenn bayit motax ku yàlla xam lu ñuy ñaan lool ku yàlla xam la lu ñuy ñaane la day ñaan ba yag mu teunk ko ci benn bayit nafsi wa dini thumma ahli wal walad wa maskani laka wadiatun abad sama jimi bop ji dem ak ñëw dana am fami yam yem diine jii ma yorit ku fi bayiko ko waratu ko waaye maa ngi lay ñaan nga téel ma boone ko dink na day mel dang ko jox ndigal waaye maa ngi la nga téel ma sama ñan ñanam nak moy ñan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dëkk wayam bi moy rew mi rek ak afrique gi mu nek fuy way deg fuy bax fuy soow laata muy bax bay wañax bu nangoni kilifa la rek jog jot na ci mom xawma ne ku waxal waye jog jot na wax jot na kon boob jàmm euh, li koy maye lu mu doon rek jar na ko waaye lu koy xañe jar na lu nekk ba jàmm sax moom moom moom lañ laaj adduna lu ci gën mën a jàmm ñu ne ko àllaaxara mën a jàmm daan ne adduna ak àllaaxara gisuma fi lu gën jàmm lépp lu na dox sa diggante ak jàmm bàyyi ko sa dem dox ci jàmm moo tax ku ko réew mi jaral bu fekkee daa tànn ci réew ma benn dëkk dëkk ca tànn ca ab gox dëkk fa tànn ca fu dëkk ne mooy këram kepp féeg laa loo ko jëralu ko jóg dese naa dégg lañ gàll ci aw loosam te kat waqifuhum innahum mas'uluun daa am ñu ko moomale mi ngi ci alquran su ëllëgee nit dana layoo ba war a dem ci yéen ma day sunu borom njabootam nga ne yàlla kee bu demee àjjana danañu jaaxal bàyyi nu fi ndax li ñuy yàggal fii kat cala ba wax jotee waxutoon ba jóg jotee jotutoon ba ku nekk def la mu bëgg a def lépp kon li ñu dal mënu caa génn yàlla ne ax akay nañ ko delloo si ñu xool yàlla nag bokk yi kenn réyut ci kanamam kenn réyut ci moom nu waaye mën a toll as njaamam dong ngay mën a doon moo tax balaa jooy di jot ñu ne diw jaamu yàlla rekk ko ñor bokk yi su jàmm amul jaamu yàlla gu set mënut a am julli mi nga xamne mo ci gëna mag mom lañu gis ci alquran fu yàlla yaatale muy julli go xamne fitna da am donte mom du taxaw mukk bu fitna amé nee bu fitna amé ba kën talatu ko ni lañuy la moy jullee jité bu ne dem len ma ngi ñëw nam daan jité lay jité ñu benn kuréel bu dee jullit tisbaar ci misaal ñaari rakka lay julli day na ca kanam te ku na ca kanam yomb naa séen waaye da ko koy jaral du yebal kenn day ñëw ba mu taxaw ca kanam ne ay ci leen li xam leen ñu def mbooloo bi ñaari xaaj mu jiite mboo mu jiite xaaj bi benn rakka jóg taxaw moom mbooloo ma àggalee seen bopp ñeke des ñëw taxaw seen place ñi wuutu leen faj ca jàppante ba ñii ñëw mu jiite leen benn rakk sëlmal moom ñu àggalee seen bopp benn rakk kon boog njiit dafa am wàll bu fitna amee moo war a taxaw ca kanam waaye fee tudduñu ko moom wala tudduñu ruq ba mu nekk wala dëkk ba mu nekk wër sa jóg loolu njuumte mën na caa am ndax kat bokk yi fa nga nek amna solo lol bind naa ko waye yalla ngi ni tag ken waye day day kagn kagnon na ñi nga xamne dañu bayyi seen dekk ya and ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak seen kër ya ak seen alal ja bayyi seen suufi maam ak bay ak seen suufi bop yo xam ñoko wutat ginaaw bi ak alal ji te nekk lépp ah ngi fi sabilillah laajuñu loolu fim ne nii si jamono ji laajaguñ ko waaye liñ laaj mooy kuy kilifa rek nga génn ne aha te ña ko séq ñépp nag nga wax ak ñoom ndax bàyyil jooy yi moom munta ànd ak tépp soo ñëwee da téye kay dóor bakay joy nopi nga ne ko loy joy ak lu ngeen lu la def ak loko def waye muñal defa woon naa ne dóor yi gëna metti ni lolou du kilifteef yàlla na yàlla dafa dëgg top te musu sa nek pakam yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa'iril muslimina amin